man rahim alhamdulilahi wasalla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayduna muhammadin wal ali wa sahbihi sawin na wali wali barke borom tayif bokki julit yi bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir suñu borom yàggal ko fi lool Mbàkke te may ko wér dafa ko njaboot Serigne Touba gépp la ko dal Cheikh Mouhamadoul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadoul Moutada am nañu mbégte nag tey daje fii ci ëttu Cheikhul Khadim bi di kër Serigne Bassirou Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir noo ngi ñaanal Cheikh Ahmadul Muxtaar bi nga xam ne tey mooy caabu dëkk Cheikh Modou Moustapha suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér di ko ñaanal tamit Serigne Abdourahmane moom Serigne Cheikh Fatma mi nga xam ne ab taalubeem ab dongoom moo waral tey jotaay bii muy Serigne euh, Pape noo ngi ziar ñëpp di ziar mboolem njabootu Serigne Touba gi fi teew yëpp waaye di jël nuyoo bi ak ziar bi nag ko teg jëmm ji nga xam ne mooy kilifa getaay bi te yor kaddu Serigne Touba muy Serigne Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Khadir noo ngi koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool mbake te may ko wér di ko yàlla ci mboolem kilifa yi nga xam ne teew na fi Cheikh Mouhamadoul Badawi moom Cheikh Amadou Fadal yabal na fi délégation liggéey bi ci loxoom la tege njabootu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma Serigne Abdourahmane Gaynde Fatma yabal na fi Serigne Bassirou Ñaan Cheikh Mbacke Mboup ak Serigne Ahmadou Ndiaye Ngeeraan famille Serigne Ibra Sarr Njaañ buntu kër yëpp a ngi fi xalifa bi Serigne Sidi saar mi ngi fi waa kër Serigne Modou Sarr ñi ngi fi waa kër Serigne Baye Serigne Sarr ngi fi waa kër Serigne Mbacke Sarr ngi fi waa kër Serigne Fallou Sarr ngi fi waa kër Serigne Mor Diarra Sarr ñu ngi fi ñoo ngi ziar baax tam famille waa kër Serigne Abdoulaye Diop Diaw Paxa ak seriñ moo du Diaw Paxa noo ngi siyaare waa kër Cheikh Mouhamadul Amine Diop Adagani di ziar baax njaboot gi fi teew waa kër Serigne Aliou Fall Mbawor famille Serigne Modou Fall Nayde la ko dara ci Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy xalifa bi ak soxna Fatma mi nga xam ne moom soxna Fatou Fall mi mag ñi soxna ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye tamit waa kër Serigne Modou Mamoun Niang Serigne Cheikh mbakke ñan di leer ci moom mi ngi fi toog dajale tey mooy fas yéene teg xeer wu njëkk barab bu am solo bu ñuy wax miftaaxul naa tur wi nag mi ngi bàyyi ko ci lam euh, mi ñu Cheikh Mouhamadul Mountakha wu tedd woowee muy centre d'accueil boo xam ne nii war naa doon téeméeri néeg ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite muy dalukaay yoo xam ne kilifa lañ koy beral la waral yitte ji nag mooy dalukaay yoo xam ne tey hôpital bi nga xam ne moom la jàkkaarlool ñu war ko faa def incha allahu rabbi lépp lu ci ne ci turu Serigne Touba la terrain bi turu Serigne Touba la sëñ Mountakha moo joxe turu barab bi teg ci loxo si Ahmadul Badawi téeméeri néeg la ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite waaye loolu lépp bu pare li ko waral mooy centre d'accueil la képp ku ñu hospitalisé nga ne ci hôpital ba di faju sa loxo juutu sa ginnaaw amoo fenn euh, foo xamante ni nii mën nga faa dem foofee ngay nekk ba sam faj ak nga dellu ci sa yitte kon loolu lu kawe liggéey liggéeyal Serigne Touba la ginnaaw bi nu fàggoo hôpital Cheikh Amadou Khadim loolu nekk koy amal dongob Serigne Touba la bu xeebu boo xam ne Cheikh Amadou Moustapha rek la teg fi kanamam muy Alaaji Papa Ami Bitik ànd ko ak njaboot gi yëpp muy mboolem njaboot gi nga xam mooy njabootu Serigne Ibrahima Sarr Njaañ ak ñi nga xam ne lim naa leen léegi jotaay bi ko laaj euh, jamono ji tolloo ay yitte damay ba teg foofu sama loxo kañ dañu koy def le 3 février tolloo ak ñaar fukki fan ñaar wala ñett ci yoonu rajab fee nga xam ne moo nekk ci hôpital Cheikh Ahmadou Khadim ci yoonu Mesere bi incha allahu rabbi bu 11h jotee. boobu laa joxe sama kàddu nag ki nga xamante ni moom mooy euh, Serigne euh, Basirou Ñaan mu yëkkati kàddu ci turu kilifa ak sëñ Pape Fall muy sëriñ Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne moo nu fi yebal aoudu billahi samiil alim min iblis ashaytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim rabbi israh min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yi mbokki taalibe yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigal ndigalul sëriñ Abdourahman Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma di ab xalifaam ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabootuk sëriñ tubaak gépp mu yabal nu fii tey nag ci juram léppam mu Cheikh Mouhamadul bashir moom sëriñ Abdoul Khader ngir ni ko sëriñ Cheikh Mbacke bu waxe léegi ci jëf ju rëy. ju màgg ji nga xam ne incha allahu moom lañuy ñuy war a tàmbali le 3 février sëriñ Abdou nag wax ne suñ ñëwee nañ jël kàddu ci turam waaye itam jottali loo xam ne ñëpp xam nañ ko waaye itam nag ñu fàttali ko ndax alxuraan moon wax ne na ngeen di fàttali ndax fàttali na jariñ ku gëm muy jëf jure ji nga xam ne euh, kenn ci moom. koo xam ne ay juram ñoo àndoon ak i juram te mësta teggi tànk seeni mu mësuñoo tegg seen tànk fañ ko teg loola itam di loo xam ne alxuraan moo ko wax ndax moo wax ne minal muminina rijalun saddaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man xadaa nahbahu wa minhum man yantadiru ma baddalu tabdila muy wane ne Pafale mi boutique mii nga xam ne suñ borom dalee a boole bu yàgg boole woon way jur yi mu ànd ak ay waajuram wa ànd ak i magam ba mu nekk fi mu ànd ak moom mu di leen jottali rek Pastef boo xam ne xam na ko ci moom te loola nag mooy la fi maam yi bàyyi woon rek béykat yi ñu tàmbalee léegi euh, jataay bi wane na ne li Serigne Touba ñaanoon ci béykat yi lépp sunu borom defal na ko ko ndax itam loolu mooy bàyyi fi ñoo xam ne la nga daan def ci lu baax ba ñu ñëwee dañ ko àggale dañ ko gën a dañ ko gën a rafetal wolof njaay nag nee na waxtu woo jiyee te say tooba réer la nee na négal ba mu taw nee na su tawee rek nga xam fi nga ji woon nee na kon nag nji sax na mi ngi ñaan mi ngi koy ñaanal yàlla nag sunu borom subhaanahu wa taala mu dolli ko jàppale ndax kat lépp loo xam ne war na war na ko rek mi ngi koy def tey soññu ko ci dara ayiwu ko dara itam loolu nag ak taalube rek moo ko man nee na kon mi ngi koy ñaanal di ko seeri jullit yëpp di ko seeri taalube yëpp di ko seeri mbokk yëpp ne ku mu gërëm la te ngërëm lii mu am ci moom itam yàgg na ko am ndax amoon na ko ci ay magam amoon ko ci ay waajuram tey taxu koo dégg tànkam loolu la sëriñ boo xam ne nañ leen ko jot li wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi sant nag Maulana Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di siyaare siyaare bi nag ñu ngi koy teg ci ak nuyoo bi muy nuyoo ay bokk waa kër Cheikh Ibrahima Sary Njaañ ñoom ñëpp seenum nuyoo dañ koo takk jox ma ko ak waa kër sëñ Abdoulaye Diaw Diaw ak waa kër sëñ Malamine Diop ak sunu waa kër sëñ ma Diaw Paxa ak waa kër sëñ Aliou Fall Mbawar nga xam ne ñooñu ñëpp seen njaboot ñu ngi fi ak waa kër sëñ Modou Mamoun Niang sëñ Basiirou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom mi nga xam ne moo la jox kàddu yoon wi nga mate ko sëkk di ñaan. Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ak njaboot sëñ Tuubaa gépp yàlla nañ fi yàgg te wér ba li nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal sëñ Bamba mu ànd ko ak mboolem njaboot sëñ Tuubaa gépp gannaaw bu loolu jàllee nag wax ji mën naa bañ a gudd li nu fi dajale rek ñu ñëw fii noonu ñu ko limee léegi rek ñooñu ñëpp nag ñooy ñi nga xam ne ñooy bokki Pape Pape kon ñu ngi siyaare sëñ Abdourahmane Mbacké moom sëriñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma nga xam ne mooy sëriñ Pape Fall Pape nag day sunu jarbaat nun waa kër Cheikh Ibrahima Sarr ñii muy seen di seen nijaay muy seen jarbaat yàlla dogal nag liggéey bii nga xam ne moom la fas yéenee amal moom nag xamal na ma ne ma defu ko ngir bëgg a liggéey ndax képp koo xam ne dangay ngay liggéey dañ caa yaakaar ak ak pay nee na da koo def ngir ak da def ngir ak sant jëf ji nga xam ne moom la tàmbali ku ci yàlla andee nee na da koo def ngir ak sant te ku ne xam ne la in shakartum la asidanakum ndax xam na ne kat sëñ Tuubaa moom maanaam maamam yëpp liggéeyal nañ sëñ Tuubaa liggéey boo xam ne liggéey bu nangu la ba xéewal yooyu mooy baawan ba tey ji ak si ci moom bëy liñ fi tudd léegi di jasaaka moo mag yoon wi kon Ibra Saar Njaañ ba muy ànd ak sëñ Tuubaa booba maanaam dégg nga rabbi ashaabaka bil himma wala tarabbihim bi darsi boobu taxawagul nangu ndigal moo ko may abiyaat yooyu kon nag sëriñ Basiiru Mbàkke e eh, ñi ngi lay seedeel ne Pape Fall mii ak ay bokkam yi mbokkal soxna Ami Sarr yëpp njabootu Cheikh saar Sarr Njaañ sant nañ ko gërëm nañ ko ndax kër Ibra Sarr Njaañ tey ñëpp ñëw nañ sëriñ Siidi saar ma nga xam ne mooy xelif Cheikh Ibra Sarr Njaañ moo bëggoon a ñëwal boppam ñun ñoo ko ne ko rek njaboot ji bu demee rek doy na kon bu ñu tuddee rek ñu xam ne sëñ Xalil Sarr mi nga xam ne moo jiite kër Baye Sëñ Sarr moom itam ay rakam ñu ngi fi ak doomam waa sëñ Mbàkke Sarr moom Cheikh Ibra sëñ Abo saar ma nga xam ne moom mag ca kër ga moom it tànn délégation ay ay njabootam yëpp ñëw nañ waa kër sëñ Falilou Sarr moom si ñëpp ay doomi Siabra Sarr lañ nag waa kër sëñ Fallou moom itam sàkk na maanaam délégation boo xam ne ak njabootam ñëpp ñu ngi fi ak kër sëñ Mor Diarra Sarr bi nga xam ne mooy caat mi nga xam ne sëñ Mor jaara Sarr moo jur soxna Ami Sarr soxna Ami Sarr nag soxna Khady Diaw mi ko jur sëñ Abdoulaye jaw moo ko jur sëñ ak sëñ Mat Jaw paxa ñoo bokk lépp kon bu ñu fi tuddee kër euh, kër sëñ Ma Lamine Diop Dagana ku ne xam ne ne soxna umi Diaw moom la joxoon sëñ Ma Lamine Diop Dagana kii ab xalifaam actuellement mooy sëñ Moustapha Diop ma nga fële ca Njaareem waa sëñ Mourou Mamoun Niang sirub teewaay itam looloo ko waral ndax soxna maam Khady Diop ba ca kër sëñ Mourou sëñ Ma Lamine ko jur kon maanaam sëñ Assane Khady Diaw mi nga xam ne moo toppoon ci suñu seex Mbawar moom suñu Alifaal Mbawar bi soxna si jógee Caareen suñu Alifaal Mbawar lañ ko jox sëñ Assane Khady Diaw ab taawa ma nga nee kon teew gi fi Aliou Badara teew teewoon na fi njabootu Seex Faal kon daal la ca des rek mooy sëñ Bas na ko ñaanal ak sëñ Abdourahmane te it xamal na ma ne ma bi sëñ bi door toog ci xilaafa gi moom sëñ sëñ Mountakha ñu ne dana la dimbali dana la dimbali. asalaamualeykum wa taala wa barakaatu. Serigne Mouhamadul Bachir nee na mi ngi nuyu bokki julit yëpp. ak bokki taalibe yëpp. nee na mi ngi ñuy jottali nuyoob Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fii Serigne Touba. di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. sunu borom it dolli ko kattan akuk wér. ba mu mottali liggéeyub sëriñ Tuubaa bi ko ci bokki taalibe yëpp nee na mi ngi ñaan bu amee lenn loo xam ne am xelam faay na ko rek ñu jéggal ko ndax wala xad xahidna ila aadama min xablu fa nasiya loolu moog doomu aadama ñoo ànd doomu aadama dafa mën a fàtte kon mi ngi tàmbalee nuyoo bi rek ci njabootuk Cheikh Ibrahima saar Njaañ ñi nga xam ne ñoo fi teewal Serigne Sidi Sarr may xalifa ba te njaboot gépp nag maase teew kër yëpp teew nañ di leen yóbbante ab nuyoo ak cant ak ngërëm ndax yéen kat Serigne Saliou da daa wax ne yéen yéenay njiglaayul yoon wi moo tax ñaare kër gum masa sanc Serigne Saliou da wax sëñ Basiirou saar na ko bu ma sañoon nga jiitu fa ndax yéen yéenay njig laayul yoon wi ndax ñoom kat ba ne ànd ak Serigne Touba seen maam booba yoon wi taxawagut de booba yoonu murit amagut sëñ Ibrahima Sarr nangul sëñ Touba lool nee na loolu day gudd ci jataay bii waaye nag yàlla def na xamee ne. sunu borom wax na Serigne Touba ne ko fasdah bi maa tuumaru ca ba mu waxee rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars Cheikh Adama Gueye moo njëkk a jaayante ak Serigne Touba su ma juumut it Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moo ca topp kon moom moom da yàgg na ci Serigne Touba de njabootam gépp itam fasteef boobee rek ak yoon wooba ak doxin woowa ca lañ nekk bëgg sëriñ Touba yamale wun sëriñ Touba ak dara seey nag ci biir sëriñ Touba bëggit njabootuk sëriñ Touba gi ñi ci des ñëpp muy njabootuk sëñ Abdoulahi Jaw Paxa ak sëñ Mut Jaw Paxa ñi nga xam ne ñoo ñoom ñii ñoo ànd ak njabootuk sëriñ Aliou Fall Mbawar tudd ngeen ko léegi Cheikh Ibra nag ñëpp xam nañ ne mu demee ak sëñ Touba sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moom la sëriñ Touba mujj jox ndigal ca xutbatu wamsa sin ak njabootug sëriñ Mouhamadul Mahmoud ñang mii sëñ Moudou Mamoun ñang ku xam ni mu demee juram ak Cheikh Mouhamadul Fadal waaye nag mu nekkoon ci kër sëñ Touba. baaye jeexal lépp ci sëñ Touba xam naa du ñàkk lu ma fàtte sax waaye li ci am solo daal kenn ñëwu fi ngir bëgg rek ñu lim la ku fi ñëw rek Pastef bu démb ba moo la andi loolu képp moo leen yëkkati ndax yoon wi moom dama naan lu la ci naqari jógewul te ya kon nag ci turu Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha nee na mu teewaal moom Cheikh Bassirou nag teewaaleel fi kilifaam di sëriñ Ahmadou Mbakke Badawiyu moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne moo waroon a ñëw ñu ànd waaye nag moom wa yusaroona ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun noonee lay doxe moo tax danaan boo teewee rek teewaaleel nga ma waaye yàlla dogal na liggéey bii bi ko sëñ Pap tolloo ak ñoom seen kuréel googu ñu taxawal sëriñ bi boole leen ak sëñ Ahmad Badawi ñu tabax ay tabax yu bari ca université ba ca biir loola nag ca la moom sëñ Pape mii xalaate xalaat bi sëriñ Ahmadou Badawi gunge ko ci xalaat bi ban agsi fii tey ba mu àgg ci sottileti tam war koo tàmbali moom sax bëggutoon kenn yëg dana woon da koy def rek ngir sëñ Touba ca loolu dong moo ci am solo waaye jëf moom sellal gi moo ci am solo waaye jëf joo xam ne bu ko ñëpp déggee man caaro yi loola siiwal ga wàññiwul dara kon ñi ngi lay gërëm bu baax rawatina nag ginnaaw ba nga ci amee ndigalul sëriñ bi li muy baax baax wa aatul bu yootam min abwaabiha da ngaa dem ci sa sëriñ muy sëñ Abdourahman nga laaj ko ci ndigal sëñ Abdourahman nag moom fa seefam akuk taalibeem akuk baaxam akuk bëggam sëñ Tuba ak fonk kilifaam kenn mënu ko caa jiitu nee na moom mii di sëñ Basiru wóor na ko ne bu tàgguwutoon sëñ Abdourahman it day bëgg ca lam def rek nee na loolu la yàlla def ci moom kon ñi ngi lay ñaanal bu baax ndax xam nañ ne baat bi wala yi de wax naan lu juddoo ci am tàgg bu naawut jaaxal ay bokkam waaye sëtub Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bu amee dogu gu mel nii ci yoon wi nee du bet kenn te liggéey bi rëy na de ndax loo xam ne la koy liggéey mat na milliard ak genn wàllu milliard mënoon nga koo def faneen waaye nag fii nga ko dugal moo gën fopp ëpp solo ndax sëñ Tuubaa kat wax na sëriñ Masamba Diop Sam na ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko baa xam nga ne man mii ak daam saan laa daam saan mooy dencukaay gu mag mu ne ko kon de ñu fas yéene doon ay lantinoor mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko buñ demee ba fa xam ne kenn mënu faa am ak diw muy ndénkaan la nga defoon ca ndaam saan ga la nga ma dénkoon nee na danaa la ko jox ba nga xam ne ndaam saan ga séenu ko moo tax sëñ laa daa wax ne sëriñ bu ñuy jox addiya te du joxe addiya daa mel na ko yor sa waxandeew gaal ku fóot ay yéreem ba mu set mu jox la na la dencal ma bañ àgg nag bis bañ war a daje ku nekk ñëw na la ana bu maa la dénkoon nga yëkkati joxe ba mbubb ya jeex bu fekkutoon nga def sa mbubb ca gaal ga xottu gaal rek ngay dese doo am loo ngi lay ñaanal jëf ji nga xam ne dafa ànd ak hôpital bi ndax sëñ mu Cheikh Mouhamadul Mountakha ku am yitte la ndax li sës ci hôpital bi dafa amoon ay borom yu ko moom yàlla def docteur Sourang di ku bëgg dëkk bi mu ñor ko lool xam naa ne loola ca maamam la ko jële mu wax sëñ bi ne ko la sës ci hôpital ba daal dama cee amoon xalaat bu rëy mooy jënd ko ñu dolli ko ci hôpital bi ndax dafa manqué fu ay kilifa mën a nekk nga xam ne bu ñu yokkee opital bi yokkee ko foofa sëriñ bi daal di yónnee Cheikh Mamadou Bassir juróom fukki million ma jënd ko jox ko ko ba miire nañ ko ngir xalaat loolu rek kon bu yàlla defee moom mii la sës ci hôpital ba mu jënd fa terrain bu mag def ko ci turu sëñ Touba fas yéene faa tabax lii ngir dimbalee ko ñi nga xam ne ña ngay ñëw ca hôpital ba ca amuñu fuñ dëkk te xam ngeen ne hôpital bi buñ la waxoon la fay dugg par bis doo ko mën a gëm ndax ngir bari te day yokk ndax dëkk bi moo màggee noonu ndax dëkk boo xam ne at mu jot la cay màgg di ca dolli ko la cay dolli ko chaque année dana mat lu mat juróom fukki junniy nit ci liñ déclaré te liñ déclaré wut moo ëpp kon Touba ni muy buñ ko dut gàttandu yàgg yàgg day mas a am jafe kon nag lii gàttanduk ñaanuk Serigne Touba képp la kon ñi ngi lay ñaanal kattan gi nga ba man koo jëf balaa nagani si déwén yal nay asakay li ngay am ak li ci yéene it liggéeyal ko sëñ Touba yal na ko sëñ Touba nangu laqal la ko it fa yàq yëgut wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf noo ngi rafetlu teewaayu jëwriñu Cheikhul Khadim ca Ndakaaru muy sëriñ Mouhamadul Mbacke yu fay yàlla na ko yàlla fay noo ngi sant bu baax tam ndawi Cheikh Mouhamadul Badi tàbbi nañu ci jotaay bi di nuyu baax soxna Fatou Mbaye moom sëriñ Abibu moom Touba ca kanam di rek ci sëñ Pape Fall di nuyu njabootu boppam muy soxna ma jigéen ak mboolem soxna yi nga xam ne ànd na ak ñoom xew-xew baa noonu pose première pierre centre d'accueil muy kër dallukaay jàkkaarloo ak foofu ci hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim le 3 euh, février incha allahu rabbi bu 11h jotee ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu fenn yàlla na ñu ko toogee def appel bi yàlla na ñu ko toog inauguré ci barke Cheikh Mouhamadul Moustapha asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. amiin amiin